kon mbokk yi ñu fas yéene ñëw continuer rek programme mu koor gi nga xamante ni tàmbali woon nañ ko ci waxtaan yi nga xamante ni baaxoo nañ di ko amal fii ci daaray kaamil tey nag ñu fas yéene ci ànd ak e, Serigne Gallas Diatara mu war ñoo ñëwal ci tomb bu am solo boo xamante ni e, jamono soxla na ko te mooy lu aju ci wàllub e, ab sëriñ kan mooy ab sëriñ tarbiya ak lan mooy dëgg-dëggi mbiram mu war ko waxtaane nag euh, seddale ko rek ci ñaari tomb yoo xamante ni dana ci développé loo xamante ni daal dana jariñ euh, ab jullit rawatina ab taalibe ndax tomb bu njëkk bi daf cee bëgg a waxtaane kan mooy ab sëriñ dëgg-dëgg beneen e, ñaareel tomb bi mu di ci waxtaane lan mooy maanaam liggéeyu ab sëriñ ab sëriñ lu mu def ci ab taalibeem euh, benn bu ci nekk ci ñaari tomb yooyu itam dana ci jël sëñ Tuuba radiyallahu anhu exemple moom sëñ Gallass jataram mi nga xamante ni nag moo ñuy defal waxtaan wi eh, defe naa ñu baree bari xam nañ ko waaye rek mënees na leen a tënkal dara ci jaar-jaaram mi ngi jànge alquran Mbàkke eh, ci daaray Serigne Mor Diop ba mokkal ko bind fa ñaari kaamil jàpp ñett ba mu fa jógee itam la dugg ci loxoy Serigne Saliou mbakke radiyallahu anhu mu yor ko yóbbu ko xel koom mu nekk fa di fa jàng eh, ak jàngale eh, jànge fa lu bare bare bari ci xam-xam diine ndax foofu la ko ku ñuy wax sëñ Mandoy Sarr ñu bare bari xam nañ ko jàngale lu bare bari ci téere yi ginnaaw ba mu eh, boole kook sëñ Xalil Mbàkke mu sëñ Musaa Absa moom it mu jàngal ko lu bare bari ba mën nañ ne ci moom la jeexalee am njàngam bi mu ci am njàngam itam sëriñ Saliou Mbacke radiallahu anhu samp ko muy jàngale ci fi ñuy wax janatul maxwa daaray 1 e. ginnaaw ba itam mu jox ko daaray ngéejaan jooju itam mu di fa jàngale xam-xam loolu rek jàpp naa ne doy na ci parcours am donte am na yeneen yuñ ci mën a wax waaye dañ ciy tënk loolu ngir njëkkanteeg waxtu wi kon dañ koy jox kàddu gi rek incha allahu taala pour mu ñëw waxtaanal ci tom boobu nga xamante ni junjoon nañ ko bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wassalaatu wassalaamu ala asrafi almursalin xabibi ilahi alaalamin wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi nga xam ne ci ñu nekk muy sahru ramadan al mubarak te li ci yàlla digge lépp ñi ngi ñaan yàlla jox ñu ko te fulal nu ko yërmande jim ci digge ak njëggalam ak gore ci sawara yàlla nañu fekke lépp te def ko te yàlla nangul nu di nuyu di siyaare saaxibul fadila cheikh muhammadul muntaqa ko ñaanal mu yàgg fi te wér te àggale yéeneem yépp di jox wàccuwaay ñiñ fekk ñëpp di nuyu sëriñ am Moustapha jatara mi nga xam ne moo jiite barab bi eh, ak ñim ko àndal ñëpp rek di leen nuyu di leen ndokkeel ci waxtaan yu tedd yi nga xam ne saa su ne ngi fi jib te lépp di njariñu lislaam te nit ñu war koo jariñoo di nuyu mbokk mi nga xam ne moo ne ci sunu ndeyjoor di Serigne Moussa mi doon def taqdim bi di sunu mbokk daara di sunu xarit ci yàlla dogal ñu ànd ay jamono yu yàgg ba yàlla boolewaat ñu tey ci bii ñu ngi nuyu mbokk yi ñu fekk yépp nag euh, ni nga ko waxee mbokk yi day def bis bu ne ñu xool len loo xam ne dana doon luy jariñ nit ñi ci diine lislaam wala loo xam ne actualité la doon ci jamono ji ngir dañu man ko mën seen diine ñu indi ko di ko waxtaane tey nag ñu jël tomb boo xam ne dana yitteel képp koo xam ne lu baax ñor na la rawatina nag nga suubu ngir mi ñuy wax tasawuf di ci dox te mooy lan defar xol ba sa xol boobu mën a yaatu ba yàlla mën cee tàbbal lu ne mu mel ni ki nga xam ne moo man loolu yàlla man loo ko ci leeruk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy wax asayxul murabbi ñu ne wan déggin lañ am ci kooku mooy kan mu mel ni lu neex a waxtaane waaye lay te itam lu jafe waxtaane ndax day loo xam ne dafa xóot xanaa kay ñu ñaan al awnu min allahi wa tawfiq ngir man cee feeñal dara loo xam lu tuut tuut mbokk yi dinañ ko mën a jariñu mu mafhumu sayxil murabbi li ngay njëkk a xam mooy day nekk raasit moom moom ci jëmmi boppam raasit lay doon aji jub ci lépp nag maanaam lépp lu mu war a dox ci loo xam ne yàlla da koy gërëm da ciy dox bu dee wax da koy wax bu dee jëf da koy jëf bu ko bu defee loolu ba noppi nag man koo defaat ci nit moom la ñu wooyee mursid xam nga sëriñ bi boo demee ci téerim bi ñaan jaalibatul maraaxib ma ngi ko fay ñaan pour yàlla defal ko ko bam mu koy wax sax ci làmmiñam la bëgg yàlla defal ko ko ci wajaal kalaami raasidan wa mursida wa fikrati nawwir wa xalbi arsida dama bëgg samay wax yow yàlla maa ngi lay ñaan nga def ko muy lu jub bu jubee ba noppi nag nay jubal te wax buy wax am na fu muy jógee mooy ci xalaat maa ngi lay ñaanit sama xalaat bi nga xam ne moom lay xalaat ba noppi làmmiñ bi ko tudd nanga ko leeral ba mu leer xol bi nga xam ne ci la xalaat bi tàbbi ngir balaa génn xol boo it na doon xol bu set nga gindi ko ba lu génnee ci moom doon doon njariñ dégg nga sëriñ bi li wax loolu lu matala la wa fikrati nawwir waxal bi arsida ndax dañoo wax ne wax bal la su génnee rek moo matoogu moo tax sëriñ bi bëgg na man samay wax nag balaa génn dama bëgg ñu peese ko teg ko ci balance bu jub ba nga xam ne xol bi day set wicc xalaat bi set wicc leer naññi bu génnee nag mën a nekk raasit mën a nekk luy jubale euh, ci tënk kooko day doon koo xam ne siki doomu aadama da koy xam sikki yi nag dafa aju ci bakkan bi ak sikki yi nga xam ne ci seytaan lay jóge yépp da koy da koy peeg xam ko ak rëq-rëq yi nga xam ne doomu aadama yàlla dana dogal muy jànkonteeg moom te mën koo fakkatal ba yóbbu ko ci musiba rëq-rëq yooyu yëpp da koy xam bu noppee nag nekk naasix naasix mooy lan te naasix muy diine diinu nasiha mu mën laa teg ci yoon woo xam ne benn mu di ko jëf nga di ko gis mbaa mu di ko wax nga di ko dégg ba yoon woowu nga mën caa jaar ba mën a àgg fi nga war a àgg mën a mel ni nga war a mel société bi mën laa jariñoo yàlla yit lim bëgg ci lépp mu am ko nee na faw day doon kooku day mën a peeg loolu lépp waaye nag ngir ñu mën koo ràññale suyoox yi am moom tënk nañ ko ci ñett muy sayxu taalim sayxu tarbiya ak sayxu tarxiya sayxu taalim moom masna na dem mooy buñ la bëggee wax mooy kan day mel ni sax leerna bañ ne sayxu taalim rek la leer muy sëriñ buy jàngale ndax jàngale moom bala nga koo def dangay ngay mën a am xam-xam bu fekkee xamoo dara mu doo mën a jàngale faaw nga am nga am loo xam loo xam ne buñ ko sàkkoo ci yow nga mën koo joxe te itam kenn munta jàngale te amul xam-xam am na ñoo xam ne sax nag mën nañu koo def te bañ ko jaaree ci téere loolu nañ ci bàyyi xel bu baax nit mën naa jàngale te du ko jaar ci téere nit nag buy joxe misaal naan diw day fekk diw moomu doon ko sori te bu soree te nga gis lu ko gën a jege dangay xool li gën a jege man mii bi ma nekkee daare Serigne Saliou sama bopp laa koy misaal ndax dama ko dama ko mu maarasa dama jànkonteeg moom gone yi nga xam ne dañoo tolloon ci jàng alquran te mokkalaguñ ko te ma gis ne war nañ koo mokkal te tollu ci war a at yi war ñu war leen a togg jëf te mu ñu ñàkk a jëf buñ demee ba nga xam ne guddi jot na ndax Serigne Sall dafa tëraloon ñuy jàng xasaayit ginnaaw bu ñu jullee timis ba noppi géew boobu ñu taxaw di jàng xasaayit ñooña tolloon ci mësoor te mënuñu ko ñoo jàng xam-xam falaa leen doon fekk di leen tombal ay tombi wolof ci liñ mën a xam seen diine ngir buñ ko buggee jëfandikoo ba am ci ñoo xam ne sax boo leen daan laaj da ngay gis ne lii tàmbal nañ cee sori lool te jànguñu boo leen baan waroon baatu arab mënuñ la ci benn baat fi ne ñun ñoo gëm rek ni bu ñuy jàng diine mën nañ ko jàng ci lañ koy jaar naam langue wi des na ko jàng ngir xam ko waaye fi ne diine mën si koo xam ba noppi te doo ci xam benn baatu arab doo kon moo tax mu ne waxat tak fii doonahul kutub waaye nag lil xaasiqil fahim day fekk da ngay fekk nga nekk ku ñaw koo xam ne di ko mën a dugal ci boppam nit ki ba mu xam li ko bëgg a wax te jafe-jafe am kon kooku mooy sayxu taalim koo xam ne daal jàng na ba xam li mu war a xam lépp ba noppi toog mbooloo ñëw di jàng si ci moom kooku mën naa wanew yoon waaye nag bu wanew yoon it munu caate kenn mën na la ko woon nag ba nga xam yoon wi lii la bu dee ki nga xam ne moo waral waxtaan wi muy mu rab bi ki nga xam ne sëriñ la waaye ba mu doonee sëriñ ba noppi day day jël nit di nekk ak moom di def ci moom di dindi ci moom ba xëy mu taxaw taxawaayu sëriñ booba loolu buñ ko dee xool am nañ ci dalil boo xam ne alquran moo ko wax fa daliluhu qawluhu taala wattabi sabila man anaba ilay kon nga daal ci dégge ni ki ngay topp aw yoonam sunu boroom nee na day delsi ci man koo xam day delsi ci man ci ngay ci ngay topp aw yoonam xanaa xamoon na toppee euh, gaa yi ñoo ci bàyyi xel ak ci wax yu bari waaye léeg-léeg da ngay gis koo xam day taxaw taxawaay boobu mel ni loolu toppi wurta am te sallallahu alayhi wa mi nga xam ne moom lañ jàngee lépp ci diine ci moom lañ ko jàngee yàlla dane man yutihi rasula faqad ata Allah ku topp sama ndaw li topp nga ma loolu dafa leer te sunu boroom wax na ne képp koo xam ne maay delluwaayam te lu mu leen won lu ne man la leen di won du leen won boppam kooku su leen woowee na leen topp leen ma nee na na ngeen ko wut si te bu leen ci bu leen ci am jeexi jaax te sëriñ bi mu ngi doon wax naan boo bëggee topp sunna su leer seetal koo xam ne wóor na la topp ko sunna la nga jël ko jox ko sa bopp ngeen ànd ca loolay mu nekk waaw daal di waxit ni bu fekkente ne dogali sun boroom yi dalaa dimbali wala ab atteem wala dogalam ba dàbbal la ci sëriñ bu mel noonu sëñ bi daa tegoon ne fa xum fii hawaa mooy lan waxul ne bànneex yi àdduna yi ñu xam déedéet lam bëgg ci yàlla te ne ca loola na ca taxaw fi ne fi ne hawaaw jooju duñ ko firi de dañ naan fa xum fii hawaaw rek na nga taxaw ci bànneexam bànneexam mooy la bànneex boo ko waxee day mel day delluwaat ca nañ ko xamee woon déedéet mooy moom li bëgg ci yàlla te di ko dox nee na nga ànd ak moom ci loola wa tabia li muraadihi mooy lam nam moom ci yàlla da di jorox nga topp ko ci loola loolu la wax de wa tabia li muraadihi wada kullama min xablu kunta tusaaniw am na loo nekkoon doon ko def laata nga koy gis loolee mën naa bañ a dëppoog lii nga xam ne moo gën a leer ci yow bu boobaa loola nga bàyyi ko te nekk ci lii nga xam ne moom la la nekk loo ndax natt nga ko ba xam ne moo la raw ci xaqiqa raw la ci sariya nga ànd moom ca loola kon noo sayxul murabbi melokaan yooyu bokk na ci melokaan yi ñu koy xame bokk na ci melokaan yi ñu xamee dañuy delluwaat ci Mustafa sallallahu alayhi wa moom danaan defar aw nitam ndax alquran daf ñu ko tegtal huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitab wa yuzakkihim yàlla nee na yebal naa ci yéen ndaw loo xam ni day jàng ci yéen ay aayaam samay aaya ba pare nag sellal leen sellal moom alquran lim ci waxee mooy nit mënu ko defal foofu ndax ba ci ba ci asaka sax euh, bi ko yàllay joxe dane as euh, bi ko yàllay joxe aaya di wane ne da ngeen koy joxe xus min amwalihim sadaqatan tutahiruhum biha wa tuzakkihim biha nga xam ne yonent bee koy def jëlal seeni alal ta sellale leen ci laabale leen ci nit mënu koo defal boppam fala tuzakku anfusakum kenn mënta sellal sa bopp wa alam bi man ittaqa yàlla nee na ki ragal yàlla man yàlla maa ko xam waaye nit mënut taxoon damaa ragal yàlla yàlla nee na man xamal naa sama bopp ñi ma ragal ak ñi nga xam ne ragaluñ ma moo tax sallallahu alayhi wa sallam yar ay taalibi ay ay àndandoom muy saxaaba yi ci diine nga xam ne diine ji bis bu set mu ngi leen di contrôler moo tax yonent bi tuddum almuraaxib Sëñ Tuubaa da ko woowee almuraaxib boo demee Euh, jaalibatul maraqib wala tey suru azim ma ngi ko koy tuddee waman yuraqib ak ki nga xam day day contrôler yonent bi sallallahu alayhi wasallam daawul tegg bëtam ci ñi ko yàlla booleen nga xam ne tuub nañ ànd ak moom daawul teggi bëtam ci ñoom ci diine ji nga xam ne jàngal na leen ko bañ tàmbali ko man ci benn mu ngi indi ay ay ahadis di leen ko jàngal ñu ci xam fu ñuy teg seen tànk ba noppi nag seen wetit di jëf ñuy gis moo tax mu ne wa kaana sallallahu alayhi rabbi asxaabahu fi diini wa dunyaahum te it ñaareel ba it seen wàllu àdduna itam daleen ci daan yar xam nga masna ma maa dégg Sëriñ Saaliw mu ne duma yàq diine du ma yàq àdduna du yàq diine du yàq àdduna daal ne ku gis loola luy niroog loola daf koo niruwaay du man kon xam nga kon loolu dañoo wax ne Euh, asaar amul te li li bokk li liy dëgg lépp ànd lépp benn wa dunyaahum xam nga dunyaa ku jëf lu mel noonu yaa tàbbi ci moom muy dunyaa lu suufee dunyaa avant la tafdil la àdduna la gën a suufe dunyaa la gën a suufe boo jëfee lu gën a suufe yaa ne ci biir li ñuy wax àdduna xam nga sëriñ bi sax bi muy wax àdduna moom dane ci biir àdduna yo jëlee naa fi ab yóbbal kon àdduna am lim baax am na lu mu baax le axastu min duniyaahu la wax saadi yi lil naan saadi yi la ma jëlee ci biir àdduna mooy sama yóbbal moo tax yonent bi bëggoon na saxaabaam yi am lu ñu yóbbuloo ci biir àdduna ci biir àdduna joojii mu leen ci yar won leen lan lañ ci mën a jëlee ngir mën koo yóbbulu ëllëg waaye du la fiy xew ci la doon yar leen doon yar ci lan lañ ci mën a jëlee ëllëg yaa ngi gis nag sax tey ci misaal sunu borom ñi nga xam ne ñooy aji am na lu wax ne war nañ ko yóbbuloo te ci biir àdduna lañ nekk wa tasawwadu fa inna xayra zaadi taqwa da ngeen yóbbulu waaye yóbbul bi lu ci gën mooy ragal yàlla kon ci at dana naa leen yar ci seen àdduna li nga xam ne gis na ko pour ñoom lim gis lim gis nga xam ne ñoom bu leen ko gisalee day bëgg ñuy dox ca loola ñu joxe ci ay misaal am na ñoo xam ne da leen daan wax na leen dee leen woor di wéele yéen dee leen def loolu bu leen bu leen ko bàyyi xëy na bu ñu mënee ñàkk a dog benn bis la ñuy dog waaye dañuy wax da leen wax ne yéen yéen moom woor dee leen ko def te ci wéy bu leen bu leen ko dagg dee leen dem am ci ñoo xam ne mu ne ni yéen bu leen ko def yéen bu leen di woor di wéele yéen de leen woor tey bu ëllëgee ngeen wori ba bay ay ay fan ngeen doog a woor waxuma nag koor gi nga xam ne moom lañ nekk gi moom dañ koy sar gi moom la yàlla saxaru ramadan la yàlla wax weeru lëm lay lu mel ni koor ngàtte gi yi nga xam ne nit da koy coobarewu sallallahu alayhi wa sallam da leen do am ñoom da leen da wax naa leen woor leen di wéele am ñum naa leen woor leen kon am na feebar yi te nga xam ne kon yéen sallallahu alayhi wa yi nga xam ne nit ci nit ñi waxuma jàngoro yi ñu ko xamee nag mooy ñun defe nañ ne rek jékki-jékki sa bopp di metti wala si biir déedéet jàngoro yi nga xam ne ci xol lay aju yonent bi kenn ku ne xam na lañ ci yore woon xam na it ni mu équilibré mbir bi ba nga ba kenn ku ne mën am na ci ñoo xam ne it daf lañ daan digal ñu taxaw gur guddi yi euh, Sëriñ Tuubaa mas naa wax benn naar ne ko del taxaw guddi mu ne ko maa lii wala xiyaamil lay man naar bu tëxit la ne ko man taxaw guddi sama yoon sëriñ bi ne ko xiyaamul layli ndax bu saaliin taxaw guddi mooy baaxu gaayu baax yi sallallahu alayhi wa na ko sayyidatna Fatima doom ak sayyidna Ali mi nga xam ne moo yoroon sayyidna Fatima ne leen yéen ñaar ñii da leen taxaw guddi da leen julli guddi soxna jaara moo ko jàngal sëñ bi moo ko jàngal Maamoor Jaara moo leen daan wax ne de leen guddi jotee mun leen dem leen jàpp ñu jàpp ñëw mun leen acca taxaw leen fi ne soxna si moo leen jàngal guddi julli euh, julli guddi sëriñ bi nee na ci moom laa xamee julli guddi man moo moo Mamoor Jaara nañ ci seen waajur ci lañ xamee julli guddi ba miin ko miinin woowu nga xam ne sëriñ bi guddi gu jot danaan def téeméer rakk boroom saam Mamoor Jaara it guddi gu jot danaan def téeméer rakk nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi gis na ni Euh, feebar bii nga xam ne moo nekk ci doomam nekk ci goroom muy Seydina Ali xam na li koy faj mooy lan nañu taxaw guddi ñoom di di ko doxal nga xam ne loolu itam indi na euh, Sayyidu Sayyidatuna Aïcha moom da ko bàyyi woon rek nga xam ne mbaaxam kenn du ko werante ku ko bu ñu ko tuddee ñu xam ne ku baax a ngi nii waaye fi ne daaw ko teg ci wenn yoon da ko bàyyi woon wax na ne yonent bi mosaan di julli sax da koy galandu tëdd ci ci wetam tëdd ci wetam ah mu wax ne man fi ma gañee gaay yi jibril moo indi sama suura sama sama melokaan eh, indi ko ci benn malaan ëbb ko ci ñëw na yonent bi kii soxna la yonent bi man nee na sama melokaan la gisee ñu jëlee ko aras indil ko ko mu xool ko xam ne maay soxnaam mu fekk ma sama biir kër baay jël ma xam nga loolu euh, mel na ni ngañaay la diggam ak yonent bi ba tax na xëy na yonent bi xam na ci moom loo xam ne xam na ne yàqu wees na ci moom defaru dana ko def ba tax na lu mu doon doxee rek da ko ci daan bàyyi nga xam ne temps taridu bay na yadda yi danaan danaan galanu ci kanamam nii buy julli am ci yenn saxaaba yoo xam ne yonent bi ay sikkar leen joxoon ne leen dee leen sikkar lii fi ne loolu doo dégg kenn koy nettali waaye amoon na nii ñuy joxe ay sikar naan deel sikar nangam sallallahu alayhi wasallam di ko saxaaba yi naan deel sikar nangam am na ci ñoo xam nag da leen a mbayee nga loon rek bàyyi leen moom moom fu leen neex jëm ndax it ñooña loola mooy seen médicament bi la ñu yonent joxoon ngir faj leen maam da leen a bàyyi rek ñoom fu leen neex dem am na neneen num daan tërbiya neneen nu bokkatu noonu sëriñam tërbiye day aajowoo ñetti mbir ñetti mbir benn bi mooy day xam bakkan maanaam sëriñam tërbiye daa war a xam bakkan bakkan bi composé doomu adama mooy lan axwaal yi nga xam ne moom la bakkan war a yore yi ci feeñ ak yi ci nëbb yëpp sëriñu tërbiye da ko war a xam loolu danañ ci ñëw ci kanam nga xam ne axawaal yooyu moom da ko war a leer naññi kii bakkanam nangam ak nangam ak nangam fes na ci kii bakkanam nangam ak nangam nekk na ci biir mu xam ko téye ko nag su ko defee nag loolu na muy mateeg na muy la cay saxak la ca dul sax lépp da koy xam su ko defee loolu itam ni koy xamee mooy xam-xam bu yàlla def ci moom def ci moom expérience boo xam ne da koo tëjriba ndax dox na ci bakkanam ba xam li nga xam ne mooy jàngoroy bakkan moom ba dindil ko ba dindi ko ba mu dañ dindi giñ ko dindi ci moom ba mu dañ dana xam ni mu koy dindee ci moom it ci day dem ba mel ni luy jàkkaarloog moom nga xam day dem ba mel ni day jàkkaarloog axawaal yooyu nga xam ne moo nekk ci bakkanu bakkanu doomu aadama bi ñaareel ba itam yaram yi sax ni mu composé da koy xam ajsam al kasifa ak ajsam al latifa da koy xam ak ak ru arwaax allatifa ak arwaax arraqifa da koy xam kii room lii la attan kii room attanul lii kii room mën na lii kii room mënul lii lépp da koy xam su ko defee kenn ku ci nekk mu jëflanteeg yow ni mu mën a jëf ni war a jëflanteeg yow kenn ku nekk mu jëflanteeg yow ni war a jëflanteeg yow ngeen baal ma da ci am loo xam ne euh, fekk naa nangam dana ci bari ndax ginnaaw nekkoon naa ci daara ju ñuy tërbiya te kooku kenn wérantiwul ne sayxul yi la muy muy Cheikh Salihu danaan def léeg gone yu mel nii dañuy toog nangoo jàng lool mën a jàng lool nangu ko nga gis gone gu ko nanguwul mu jël gone gu ko nanguwul googu yi di ko teg ci oto di ànd ak moom dem ko dikk bu demee ba gis ne sax gone gii nga xam nangu woon naa jàng mi ngi mel ne kuy commencé commencé gis nii gone gii dañ mel dañ ko wutaleeg moom dana la ber ci ruq na la ñàkk gu ma ñàkk ci moom yaakaar moo tax ma di ko teg si moto bi waaye Serigne Sall daana wax ku ma am ci moom yaakaar bu ma ko rombee sax mën naa ko bu ñu kon kon kenn kon axwaal mooy loolu gis na ne kii bëgg dem ak bëgg ak mu ne ci moom mu mel ni ku koy farce loola loola fi ne ci lay demee demee deme dem ba gone googu nangu lim lim bëgg moo tax xam axwaal yi lu ci am solo la su ko defee nag bu ni muy soppandikoo ci nit ki da koy xam moo tax lenn lu ne day xam fan la koy teg nga xam ne lenn lu ne barab ba mu aajowoo da koy xam ngir xam fi mu koy teg bu boobaa nag du ko teg ci bànneexam kon kon la ma doon la ma doon tàqale ñëw na mooy bànneexu bokk kanam déedéet cofeel gi am ci yàlla te xam ko ci yàlla dund ko ci yàlla ba am ko foofu la koy teg ñaareel ba it du ko teg ci bëggub cër loolu fi ne lu ci lu ci lu ci ab sew sew la ci léeg-léeg nga gis koo xam ne day bëgg ab cër cër boobu mu bëgg nag du ko du ko du ko du ko du ko du ko du baaxul ci moom ba koy def ci keneen waaye lim koy def rek mooy bëggal nit ki cër ci yàlla waaw loolu la koy bëggee waaye du bëgg du cër boppam lay bëgg ba tax muy xer nit ki ci lool waaye nag dañoo wax ne loolu mënut a mat lu dul moom mu am ak wara li ñu naan wara nekk ku sàmm sàmm ci biir ragal yàlla. bëgg doom aadama yi fonk leen ba noppi respecte leen ba noppi du leen xeeb ci dara loolu bokk na ci li wara nga xam ne boobaa euh, sàmm googu muy sàmm mooy tax mbir mi di gëm ak ki muy tërbiye li kiy tërbiye yi di def du ci gis boppam ci dara du dem ba mu yàgg mu naan ko lii de bi nga koy def bég naa ci ndax maa tax nga di ko def déedéet da ciy gërëm yàlla moom daal di wane ne yàlla mi nga xam ne kat may na ko ba mën a def ci nit lii moom lay sant ci lii waaye du ci sant boppam déedéet ñaareel ba moom won àdduna ginnaaw gu mat daa war ci moom nga xam ne ki muy tërbiyee war naa gis ci moom loolu ñaareel ba itam ngëm gu mat sëkk day am ci day ne ci moom nga xam ne ki muy ki muy nekkal day gis ci moom ne kii ku gëm yàlla la gëm yàlla nag day feeñ ci li lay gaar nit ki balaa ngëm yàllaa ma feeñ day am yu koy gaar yoo xam ne yu metti la mu muñ ko te yàlla tax am yoo xam ne day àgg ci xaw koo tuskareloo mu mën koo muñ te yàlla tax ki ngay tërbiyee gis loolu ci yow kon faw mu jéem a roy ci yow loolu waaye su fekkente ne lu la dal nga ne i ah bu boobaa kon li nga ko bëgg a woon dootoo ko mën a woon su ko defee boobaa loolu la muy jur mooy di nga dem ba teg tekki ngay tërbiye ci lu lu dul yàlla dutu ci am soxla ndax yow gis na ne lu dul yàlla amul soxla xam na ne sa sa gëm yàlla rek moom nga teg ci kanam ñaareel ba itam moom moom yi nga xam ne mooy seexul murabbi yi daa fekk nag jaaroon na ci loxo yu ko mat loxo yu mat koo ko def kon ni mu ko war a def ba noppi moom nu wëlbatiku mën koo defewaat te it kam jaar na doon ko xam ne tegginam leeroon na moo tax am na ko mas a bi ne ko sa doom yi kat moo leen yar mu ne yàllaa leen yar ndeke yaru munta ñàkk ci kenn xam boo gisee mu wax loolu eh, am na loo xam danaa ci ñëw waaye sëriñ bi mu jógee ci géej gi 1902 ba 1903 mu dem mu dem Thièyène ba dem fi Mauritanie ci misaal ba ñibbisi ci la sëñ Abdoulaye borom dër bi doo ko feeñ te sëñ Abdoulaye borom dër bi mooy moo moom ci ñi nga xam ne ñoo ñoo njëkk a feeñ ginnaaw géej moom moo ci te ñoom ñëpp ba ci sëñ xam ne am na ñu ne 24 la feeñ gis nga ñoom ñëpp nañ mel nga xam ne sëñ Mourtala sax moom nekku fi sëñ bi lu bari xaw am na ñu ne du 24 waaye daal lu mën a xew at yu néew la fi amul bi moom moo ngaa joxe misaal ci moom te ñoom ñëpp gis ngeen niñ mel moo tax bañ ko laajee sa njaboot kan moo yar daf ne yàlla moo leen yar moo tax moom ci jëm sax nee na nekk gi ma nekk ci biir géej gi di tagg rasulullahi sallallahu alayhi ak lam fay daj nee na loolaa ko yar matxiilahu fil bahri rabba kulli wa sarmadan jaala kusran kulli tagg gi may tagg rasulullahi ci biir géej gi moo yar sama lépp lu ma néew la woon it foofu laa ko bari ci lu baax lu ma néew ci lu baax rek foofu laa ko bari lool kon faw ki nga xam ne moo yare day doon ku yar moo tax sallallahu alayhi wa sallam ab yarkat la moo taxit it daf ne woon addabani rabbi fa asana ta'dibi yàlla yar na ma ba noppi rafetal nu ma yare kon loolu da nga ciy da nga ko ciy déggee moo tax euh, sëriñ bi wax na ne am na ku ñu wax abu ali as-saqafi nee na woon ku boole woon xam-xam yépp dajale ko lépp xam-xam yépp ne sa fépp fu ñu wutee lu baax nga dem fa nga nga dem fa fekk fa lu ñuy jàngale nga jàng ko ba mu jeex mooy li alquran nan falawla nafara min kulli firqatin minhum taifa nee na amul kuréel booba foo déggee ne am na lu baax luñ ñu fay jàngee dem nga jàngoo waaye gisuñu fenn foo yaroo ci kenn benn sëriñ ah, wala koo xam ne xam na yàlla ba xamal la yàlla nee na kooku bu boobaa jërul jox sa bopp mën na laa won yoon waaye mun la caa teg maa ngi maa ngi gis sax sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana di ko wax sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na ah, sayxul muallim bu la jàngalee ba noppi xat yar sud wa xat laa yar sud walam yakun min wasifatil muallim a tarsin nee na ki nga xam ne mooy jàngale moo na bokkul ci warteefam mu ne fi ki faaw mu dalay jàngal daal woon la njub mooy lan waaye du tax nga jub sëriñ sayxul bi nag dalay wan ak njub ba pare fexe ba nga jub bu fekkente ne lam la woo lépp wuy si nga wuja ba ci cëppaandaw la ci ak njub rek ngay mujj moo tax ku wóoroon amoon xam-xam yi wër fu ne te gisoo kuñ ne la kii moo ko yar nee na kooku moom moytu ko moo tax al Junayd bi nga xam ne euh, tasawuf bii ñuy dund ci ñun ñii ci wàllu sowu bi wax na ne sunu xam-xam bi ñuy def ci nit ñi ngi ko tënkee ci alquran ak sunna xam-xam bi ma doon wax bépp nag bu leen defee ne dara génn na ci alquran ak sunna moom rek la daal ne képp koo xam ne doo toog ci jotaayu waxtaan bi fi ñuy waxtaanee xam-xamu alquran ak xam-xamu sunna te doo fekk fuqahaa yi ngay toog ak ñoom ngir mën a xam sariya boo noppee nag fekk ci ñi nga xam ne am nañ teggin nga jëlee seen teggin ci ñoom moo tax Sëriñ tubaa téere bii ñuy wax Nahju ba mu koy jàngale dana dafa am ñu ko sàkku ci moom mu ne ñi ko sàkku ci ñoom moo tax ma def ko ngir ñu mën caa tegginoo waaye daal ne loolu lu war la sëñ bi ne sëñ bi ne loolu lu war la nee na nag képp koo xam ne nag xam-xam bi ngay jël jëloo ko ci xam-xam alquran jëloo ko ci xam-xamu sunna ñaareel ba itam fenn fu ñuy waxtaane addis doo ko fekke doo toog ak fuqaha yi gisuñ la ne kii moo la yar nee na kooku afsada mani tabangaw ku ko topp yàq ndax lam lay xamal di ko waxal dila ko wax amu ci lenn loo xamante bi bii luy dëppoog alquran la wala sunna la wala yarub ka ko yar moo tax ibnu ataillahi wax na ci téere bi ñu wax rasul xikam nee na bul ànd ak koo xam ne mbiram rek moo lay ñor laa tashab man laa yunhidu ko xaalu koo xam ne mbiram mbiram doo ca mën a jariñoo déedéet nee na bul ànd moom ñaareel ba itam wala yadul la ko alallahi maqaalu teyit lim lay wax du la tegtal yàlla soo xoolee lim lay wax lépp ju boppam lay jëm nee na kooku moom bul ànd ak moom kon kooku euh, sayxu tarbiya la mu des beneen sëriñ ñu ko wax sayxu tarxiya moom it am na ñett yëf yoo xam ne moom lañ koy ràññalee mooy lan sayxu tarxiya moom boo ko gisee rek ngeen jàkkaarloo rek sa jëf ci wàllu yàlla day yokku jàkkaarloo gi ngeen di jàkkaarloo rek moo lay yokkal sa jëf ci wàllu yàlla am na ko waxoon ne saa yu ñu xëyee suba teel bu suñ bët ne toq ci Muhammad ibnu ibnu Waasia kon say xul mu raqi la na fu ñu ko gisee rek nee na semaine boobu ñooy raw fett gu mbër sànni nee na danañ jëfe noo xam ne dañuy xam ne xool bii nga xaw xool bii ñu xool Muhammad ibn Wasil moo ñu ko bay nee na day yokk suñ pëseef yokk suñ taxawaay ci yàlla kon ñett yëf yi nga xam ne moo ko composé bi ci njëkk mooy gis moom gis rek dafa am lu muy def ci nit ki ñaareel ba itam kàddoom kàddoom bu jógee rek day dolli sa xaal day dolli li nga xam ne moom nga war a jëfe moom la abu muhammad abdusalaam ibnu masis radiallahu anhu di wax ne bul ànd koo xam ne boppam lay jël teg ko sa kaw déedéet wala koo xam ne sax day jël sa yow teg la ci boppam ndax nee na loolu ay du dëgg ndax da du yàgg waaye nee na ki ci gën a yées sax mooy ki nga xam ne moom day jël boppam teg ko sa kaw ndax kooku wonatu la yàlla boppam la lay won waaye ki nga xamante ni bi dalaa jël teg la ci kawam moom it am na lu mu bëgg ci yow ndax naxtaan la lam bëgg ci bu ko amee wan la ginnaaw kon loolu du sax moo tax mu ne na nga ànd ak koo xam ne suñ ko tuddee rek faw nit ñi tudd yàlla ndax melokaanam ci yàlla mën naa mën naa la ko misal Serigne Serigne Touba tey fu ñu nee Serigne Touba nga dégg ñu ci yàlla. waaw mooy koo xam bu ñu ko tuddee euh, ñu tudd yàlla innamal muminuna alladina isa sukira allah wajilat qulubuhum bu bu bu li yàlla def ci moom tax na buñ ko tuddee rek xel yépp dellu ci yàlla kooku mooy sayxul yi nga xam ne bu boobaa sax moom melokaan woowu mu yore day daal di dox sa ak sa boroom ba def ci yow yoo xamante ne bii maanaam yow boo jéemoon a jëm ci yàlla yow képp loolu du tax nga mën ko amee noonu na nga ànd ak koo xam itam buñ ko tuddee rek tudd googu rek mën naa def ci sa xol ak leer ñun ñëpp mën nañ koo misaaloo tey sëriñ bi saa yuñ ko tuddee rek am wax yuñ ci wax ci moom rek da nga am loo dal yëg sa xol nga xam ne tey mel ni xol sax mënoo dem ba teg sa loxo lii mooy xol ci nit waaye da nga da nga yëg sa fii am lu ci yëngu loo xam ne boo mënoon a wax xol da nga xam ne da naan fii mooy xol loolu nag sëriñ bi doonul loo xam ne moo ko may boppam yàlla moo ko ko may ak ko yàlla sant mu nangu koo jëf ci diggante ma nit ñi te sayxul muraqi jàkkaarloog moom day def li ñuy wax caabi kumpa lépp loo xam ne xam nga kumpa suñ borom dane fala yusiru ala xaybi ahadan illa man irtada min rasul xam nga nit ñi dangay ngay jékk ñu ne wa indahu mafatihul xaybi laa yaalamuha illa hu waaw yàllaa xam loolu tekki wut nii keneen da koy xam waaye comme ko jubloo woon nga xam ko lu mel ni inna allaha indahu ilmu saa loolu kenn fekku fi fekku ji wa yunassilul gays loolu dañoo wax ne moo koy wàcce waaye dafa am ñu koy firiwaale ne lim ne bisu penc maa ko xam ñu firi ñu dëgale elmu ñu dugal waaye wooyu na suñu xëy si rek maay wàcce taw am na am na ñu ko yàllay xamal jërul sori sëñ Fallu mii ñëpp xam nañ ni euh, nit ñëw na di sàkku ci moom taw mu ne ko ndax danga bëgg mu ànd ak yow wala mu fekk la fa loolu def na ko ba tàyyi ñëpp dégg ko loolu kenn du ko weddi wa yaalamu maa fi larxaam wa yaalamu yàlla dane li ne ci biir ruxum maa ko xam maa ko xam mooy na mi composé woog na mi mel waaye léeg-léeg yi ne nangam bi sàngam la nit kii di am doom wala kii nangam la ëmb léegi nag loolo yàlla maye na ci wa ma tadri nafsun maasa taksibu xada loolu kenn fekku ci yàlla ba kan xamul lu muy lu lu muy fàggu ëllëg ñun ñii kenn ku ci ne xamul li xew ëllëg loolu moom kenn fekku ci yàlla wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut na am bakka bakkanit xamul ban bis lay faatu kon jàkkaarloog sayxul murabbi mën na laa ubbil yu baree bare bare yoo xam ne da koy xam te kat kaay ma wax la mbir loolu ku koy werante da ngay jànkonte wutu tërbiye waaye bu fekkee yàlla dogal na nga jaar ci buñ la waxee lii moom di ci mën a xam dara ñaareel ba itam euh, ñetteel ba nga xam ne moo composé sayxul murabbi ci liñ ci mën a jàngat jaxasoom day jeq ay leer ba nit ki leer yooyu da ciy dox ba àgg ci ñax bisaatul kamal ba àgg ci mat maanaam nekk nit koo xamante ne bii nit ku mat la loo jële ci moom rek ci yàlla lay ci yàlla lay jëm nga xam ni loolu li ko may mooy ki muy jàkkaarloo bis bu ne moo koy may lool ba am ko ba am ku ne rab murabbi faw mu am ay aayaat yoo xam ne bu nekkul ci moom rek desu ko mën a nangooti wali sayxi ayatun ida lam takun lahu fama huwa illa fi layalil hawa yasri nee sëriñ bi nga xam ne mooy sayxul murabbi faw mu am ay tektal yoo xam ne ay màndarga yoo xam ne buñ ko kisul ci moom kooka ci bànneex rek lay dox ku ànd moom di nga dox ci bànneex ànd ak moom dox ci bànneex ñu ne mu mel dañ ne ko aayaat yi mooy lan mu ne iza lam yakun ilmun ladayhi bi zahirin wala batinin fadrib bihi lu jëjël bahri nee na faw mu am xam-xamu zahir bu leer nañ ñi nee na faw itam mu am xam-xamu baatin nee na xam-xamu zahir bii ak xam-xamu baatin bi su fekkente ne yorewu ko nee na boo ko mënee jël sax nga jël ko sànni ko ci géej gi fadrib bihi lu jëjël bahri ndax kooku amul solo xam-xamu zahir war na koo am war naa am xam-xamu baatin wa in kaana illa innahu xayru jaamiin li wasfayhima jamaan ala akmalil amri nee na bu fekkee ñaari melo yi dajewu leen dajalewu leen dajale gu mat sëkk fa aqrabu axwaalil alili ila rada ida lam yakun minhu tabibu ala qubri nee na bu fekkente ne melokaan yi ma wax amu ko amul xam-xamu zaahir amul xam-xamu baatin nee na ma jox la ci misaal ki gën a gaaw a faatu ci ku feebar mooy ku feebaroo nag bu ngay dem ci docteur demoo docteur boo xam ne am na xabiir koo xam ne xam na li nga xam ne mooy sa tawat xam na jàngoro ji koy jàngoro ji xam na itam médicament yu koy faj waaye nee na boo demee koo xam ne xamul sa tawat xamul médicament yu koy faj bu la consulter da lay consulter noo xam ne waru la ko consulter jox la médicament yoo xam ne da lay rey moo tax sëriñ bi faw mu am xam-xamu zahir am xam-xamu baatin walam yakun illa al wujudu aqaamahu wa azharuhu mansuuru alwiyati nasri nee na day doon koo xam ne yàllaa ko fi jublo saxal ba noppi ñaareel ba itam yàllaa ko jox ndimbalam ngir gi mën a jaar ba mën a ja ba mën a dimbal nit ki nee na boo gisee kooku nag fa aqbala arbabul iradati nahwahu bi sidqin yaxullul usra fi jalmadi saxri nee na bu boo xasee ba gis kii nag jëlal sa volonté yëpp nga dajale ko jox ko ba pare nag doon ci dëggu nag dëggu goo xam ne tey jafe-jafe bu demoon ba ca doj wa gën a tëx mu ne fa sax sa dëgg googu mën na faa fecc ba ba jafe-jafe googu nga mën koo rañaan jàll mooy lépp lum laaj ci ngir ànd ak moom ngir mën a jariñu na ko def wa ayatuhu fasalazina fasu ala siyam sharin